xaalidina fiha la yabghuuna anhaa hiwala mbokku jullit yi mbokku taalibe yi ñu ngi nuyu ñëpp di ziyaare di ko tàmbale ñaan goo xam ne dañ koy jagleel xalifatul aam li tariqatu muridiyya li tariqatu muridiyya di sëñ Muntaxa ñaan suñu borom gën ko bàyyi suñu kanam ba lépp loo xam ne dañ koy jëlee bu tedd ki suñu borom mottali ko ko ànd ko taalibe yi di ko ñaan borom Daaru Muxti suñu Basiiru ànd ñoom Mbàkke mu yàgg fi te wér lépp lu mu naan liggéey ko fay ca Daaru Muxti suñu borom mottali lépp moo la ko taalibe yi di ko jege si am ni moo du mel na it waaye di ko jege mbokk taalibe yëpp di nuyu kilifa jotaay bi sëriñ Abdou Aziz di ko ñaanal mu yàgg fi te di santaan mbokk taalibe yëpp di leen ndokkeel ci weeru teet wi nga xam ne mooy nisu Shaaban di si ñaanal jàmm tawfiix ñaan mu bañ doon suñu weer gu mujj lépp loo xam ne rek ñu ngi am bébét di liggéeyal ko sunu borom dégg ku tedd ki sunu boobu nangul ñu ko te motali ko ci barke weer wi waaye delluwaat di soññaat sama bopp di soññee képp koo xam ne sañ naa la soññ in uridu ila islah mastata ñu xam ni kon wax ji moom mënut a génn lenn lu dul li nga xam ne moo nekk suñu kanam mooy bisu nisfu Shaaban di bisu màggal Daaru Muxti ñu nga xam ne it bis bu màgg la bis boo xam ne bis bi yónni saa sana fonkoon la te jëmbee waaye du weer wi ñu nekk doon weer woo xam ne it mboolem jaam jëf bi ngay jëf ci kaw suuf ci weer wi ci lañ koy yéegale ngir mën koo saytu waaye ci weer wi ci dañuy màggale bis bi nga xam ne it moom lañu ñu boroom borom Daaru Muxti ma nga xam ne moo jël léppam jox ko Sëriñ da ko Sëriñ Tuuba waxe woon ci ndawam ba ci mag musta wuteeg man ci dara ndax bu ñu fàtte ko màgg daar gi ñu génn bu ñu demee ziyaare ji sëñ Bachiru Anta Ñaŋ mu ñu di waxtaan am na ñu waxoon jaare ko ci jaar jaaru borom daaru muxti mu ne borom daaru day ba mu ànd ak Serigne ñu bëri ci ñi jamono jamonante woon ak moom dañoo naan Serigne Touba li muy woote kenn xamu ko ñu koy soog gis waaye day benn taalibe rek la am de muy Cerno am ñeen lépp ko topp li muy mbokk ma tax waaye ana mu tey ña doon wax loolu lépp seeni i sët seen njaboot takk nañ seen dëgg dem di liggéeyal maam Thierno kon maam Thierno fa mu tegoon bëtam foofu la kenn ëpp ko xam-xam waaye daa ji lépp xam ne liggéey Sëriñ Bàmba ku ci nekk amoo jot xam-xam kenn ëpp ko ndax ci nettali rek sérif yi nga xam ne dañu newoon gànnaar am mbokk mu wàcc liggéey bàyyi fi njaboot ñu doon ko miraas am jafe-jafe ci miraas bi ngir ni dafa am jëmm joo xam ne ci njaboot ga yàlla daa dogal mu doon ab nguuna naan doon góor doon jigéen miraas mi nag xam nga xam cëru góor lañ ko war a jox wala lañ ko war a jox cëru jigéen am ñaar war am wala benn ndax dañuy bañ joxe ñaar fekk tooñ nañ wala ñu bu joxe benn far tooñ nañ ñu ne tooy nam seeti sëñ Bàmba ci Sénégal ba ñëwee ci bi sëñ bi Ceerno la leen booleel ci lu matul 30 secondes mu faj seen aajo bu ñëwee mu ne la luy seen laaj ñoo ko sunu laaj de ñaar la sax ba ci njëkk dañoo am miraas goo xam ni daf ñoo jaaxal ndax ki wàcc ci liggéey doom ji fi ba dafa yor cëru góor yor cëru jigéen te xaw ñu ba xam dañ koy jox ñaar muy cëru góor wala dañ koy jox benn cëru jigéen borom daar ne loolu du waral du problème dañ ko dem yebal mu tuuri ndox cër ba mu tuure ndox cër boobu tamit mooy cëram ci lu gàtt loxo daan gémmiñ ñu xam ni wax ji dara du ko tekki te bu ñu jëlee téere loolu cay fekk te lu xóot la ndax ñaar yëpp mën ñoo fonctionné loolu mooy tontam. borom daaru ne beneen laaj bi ba nga ko bàcce desit dafa am ci jur yoo xam ni dañ koy jëfandikoo te mu lew ñu loolu te waaye jur gi dafay xiwloo sobe ndax bu yàgg di gisoon naa vidéo yu mel noonu ci WhatsApp bi sax gaa ci laaj ñu waroon ab am buy nàmp ci xaj borom daaru ne leen lu dagana lekk la ndax daggeen gi daa jiitu alxalaalu bayyin wal xaraam bayyin suñu tuba la yontu saasam jàngaloon lu araamoon du mos a dagan waaye du daganu du mos a araam maa xam ngeen jën yi ci géej gi nit dana dee jën lekk ci géej gi te di ko tee dagan te yéen koy jëfandikoo ci biir kër yi te waxu leen ci sunu xar yi ak sunu bëy yi yar ci kër gi bu ñu lekkee sobe xar moom dagan naa lekk bëy ba dagan naa lekk waaye nag seen i rek seen saw ay sobe la ñu jox leen bind ñu duggaat oto demaat Gaana di li ñu fa jële kon la muy tegtale rek mooy li yi xew léeg-léegi doon ay conférencier ku xam ñaari téere rek fës jéem a bëgg a fës maanaam da doon géej goo xam ni wanewu ko ngir lan kuy liggéey seen tool du am jot moo Sëriñ Tuubaa yónnee ba muy yónnee lu tax mu tànn Cerno xam na ko ndax du ci yokk du ci wàññi te loolu mooy taalibe dëggantaan taalibe bu ñu nee benn la nga def ñaar la ngay wut doo bu ñu ñaar la nga def benn la ngay wut doo ko am sëñ bi xamoon na loolu ci Cerno te xam ne li bëgg te yónnent boobu ku yónnee ci yàlla am ndam te amoon na ko ci njootam naxu ko mosu koo nax ci loolu mu jël léppam jox ko Sëriñ Bamba xamul kenn ku dul Sëriñ Bamba ba Maam Mor Anta Sali génn àdduna ca miraas ba Sëriñ Tuubaa ñaari cër kese la ci jël du xaalis du kër du teene du dara kaamil alxuraan la ci jël ak maam Cerno kon maam Cerno Sëriñ Tuubaa am ndonneel la ko def ba maam Mor Anta Sali génnee àdduna ci miraas bi cëru Sëriñ Tuubaa lañ ko jox ci miraas ba maam Cerno lañ ko jox ak téer alxuraan Sëriñ Tuubaa fi mu teg cennoo kawe na te loolu Sëriñ Muntaxa Mbàkke waxum bu yàggut ni murit ni Sëriñ Tuubaa bëgg ab murit mel dëggantaan noonu la def moom cennoo murit dëgg kaamil sëkk ni jëmm jooju mel na ko Sëriñ Tuubaa def ngir daal dafa jël lépp jox ko Sëriñ Bàmba nekk fa di xiin xiin yi kon bu ñu jëlee suñu mbir doonaat ay taalibe waaye nag dañu bàyyi xel woon nañu yoon mënuñu roy kenn ku dul moom ndax dañ koy sikkar kii saako taalibe roy ci borom daal atiwu llaaha wa atiwu rasuula ko wax topp yàlla topp bi topp ñu leen di woon yoon kon mës yox yox yi ca fa jëm ndam képp la ci jële kon nag bisam bu dikkee képp kuy taalibe te muy dëggu ci yow war na laa ñor war na laa jaral lu ne ndax nga xam ne bisu sëriñ Bamba maam Thiono bisu sëriñ Bamba bisu sëriñ Bamba bisu maam Thiono bisu maam Thierno bisu Serigne Touba la ay bisu Serigne Touba bisu la ndax bàyyi na ginaar ak nenam borom ginaaram moom loolu fi ñuy wax te sëñ Touba moo doon woon Thierno ci cër ci miraas bi kon alalu Thierno mbiru Thierno jëfi Thierno bisu Thierno lépp Serigne Touba la te sëñ Touba moo waxoon ni man ta'allaqa bi waasilin wasal wa man ta'allaqa bi aksirin fasal ku jokk ci moom ku jokk ci moom yaa ngi seen jàppale Serigne Bamba nga jokk te sikki sàkk nu ñi maam Thierno dafa sës rëpp ci Serigne Bamba amuñu kon dañuy mooy bu dëgër ci moom te kooku ci def doo xam ne ba nga juddoo ngay judd sax laa wax la Serigne Touba di la xaar la Serigne Touba toog di ñaan suñu borom. njëkk mu jug laa wax Mamour Anta Sall waxoon Serigne ko di kii de bu juddoo bu yàlla defee muy góor rëy njortu naa ni la aaroona féetoon foofu aaroona féetoon Moussa dana la fa féete moomu juddoo muy góor téere bi ñu ko njëkk a takkal Serigne Touba ko bind kon njëkk mu judd la ko Serigne di xaar mu dudd mu téel ko boppam teetal ko boppam def li def ci moom Sëriñ Tuubaa jël ay doomam di maam di borom da di Sëriñ Fallou suñu mboolu message ñoom suñu muy tukki tegle woo maam Cerno leen leen ci seen baay Cerno li ma bëgg si ñoom ñaar kese la xam-xam ak yar bu fekkee benn bi kese mooy mën a am na doon yar dégg nga loolu na nga def ci ñoom xam-xam na nga def ci ñoom yar mooy teggin bu fekkee benn moo ci mën a am bàyyi xam-xam bi te jël teggin ndax xam-xam mënees na cee ngistal waaye teggin mënees ci see ngistal tooloo seen tubaab amu ci gàcce ndax sëñ Fallou Mbacke confirmé na ko moo suñu bàyyi Thierno daf ñoo yar ba ñu ne nër waaye daf ñoo jàngal ba ñu ne aar xam ni ndénkaane Serigne Touba yore ba leen fa peste bi fekkee taw gu metti di faat muy ñaan suñu borom ba feebar jàppee suñu baaraam. mu ne attunu ma sëñ Bamba dénk ma dikk fekk ko fi sëñ Bara mi bu naree dem jël sama bakkan jël sama bakkan soxna Fatou Issa Diop di sama waajur jël bakkul sëñ Modou Moustapha sëñ sëñ Modou Awa Balla sëñ Cheikh Awa Balla ndax sëñ Bara dund alal dund kon woon fu mu tegoon Serigne Touba ngir daan def fu ko Serigne Touba teg moo kawee te nit mënta nekk lu dul góor yooyu yëpp di ay misaal te mosu ko wane ci benn sax amoon fit ci côté bu ne ndax léeg-léeg nit di daaru tax ñu bëgg fetal ndax dafa xamoon nit warta ragal ndax kàccoor yi fa nekkoon ay jamono yoori seen li mbëq dóom bi tiital askan bi tax na mu doon ay sox di ko tiire di leen dàq di jëflante ñoom ni ñu war a jëflante ñoom di sox ay sox yoo xam ne gone di ko dégg dem tiiru sox teetatul benn gone teetatul benn gone loolu nit ñi di ko ci roy kon ñu xam ne ñoo dañoo xam la mooy àdduna xam naka lay def nit parce que nit moom bu ragalu rek bu am lu ko mën siital rek day am stabilité kon xam nañu àdduna xam nañu àdduna nañu fa ñuy teg seen tànk waaye seen tabax ko yar seen tabax na ku ko yar موم نين سونو بور موم يار موم جاغال علمني الله ونعلم مما يشاء من علوم في سونو بوروم جانغال سونو بوروم يار لا بوكو ديو كو يار نو ورا مل كون بو نجيلو سونو ييب جوكو كو تاميت نانيو خول ني نانيو ورا مل نيون nañu xol ko ñun ñu wara mel kon nañu fexé ba bis ba buñ ci démé ñaan su mbon yobul ci ak jamm ñu bañ fa dem di seetaan xam ne bu suñu tànk ne cëpp ci dëkk bi jot amatul jot sa musta am ndax taal bi suñu doo amul jot rawatina bu ñëwee cëpp ci bisu Maam bi nañ ko defewoon woon daaw mu foow ko lool daf ko war a raw daaw jaayante nañ gis sëñ Basiru Anta Ñaŋ gis sëñ Muntaxa Mbàkke gis alaaji maam Cerno ibnu Cheikh Obaba gis sëñ Abdourahmane bi nelaw bu yàggul ñu defal mbokk taalibe ñaan dem bayti yóbbu fa lañ foora yóbbu toog ay benn yóbbu zikrullahi yi mu kawe lool waaye ren da ko war a romb loolu mooy doxi bu ñu fa nekkee nañu takk ndigg te xam ni amatuñu jot rawatina yor yor gi ku ci mën a jàng alxuraan na jàng la nga ci mën faqra'u maa tayassara mina alxuraan ku ci mën a jàng xasida boo mën nga jàng loo ci mën ku ci mën loolu di ko ak kurus bàyyi faal day jege kurus bu ruuj bi nekkul ci bos mu nga ca baat ba Baye Fall day jege kuréel dafay ñeme kuréel ndax alxuraan na ne kat rijaalun laa tulhiihim tijaaratun wala bay'un an zikrillah góor yàlla dëggantaan jënd ak njaay emiru àdduna du ko tere tudd yàlla loolu alxuraan ko góor yàlla la wax rijaal la wax amee rijaal yi Baye Fall warut a ñàkk kurus loolu muy sootu nuur kon nañu bàyyi xel yooyu tudd yàlla ci bis bi walillahi asmaul husna fad'uhu biha tuur yàlla yaatu na bëri na sakkan boo ci woo muy si la yow bu la yàlla wooyu dalay neex def la li lay def te lu tey moom ñu ni woo ko ko te moo ko sàkk ci ñun nañ ko defal loolu te koo ko defal yàlla sa bopp moo defal kon bis boobu bisu tudd yàlla la bisu sikku la ay bisu joxe benn la bisu liggéey la du bisu noof la kon bu ci nekk nañu xam ni ñu nekk ca buñ jógee nag lañu fa jëf na feeñ si suñuy bu ñu fa nekkee nañ nekk te war a nekk waaye bu ñu dellu see ci kàttanu suñu borom lañ fa jëf na feeñ ci jëmm ñu di ko doxee suñuy doxin suñuy waxin suñuy jëflante yi dañ koy yi ñëpp di ko soñ sunu bopp gaa yi gën a fonkaat zikrullah yi gaa yi gën a fonkaat zikrullah yi objectif bi du du quantité mais qualité la bu leen doonoon junniy doomu aadama xam ne ñu toog di zikrullaa toog leen fii seen xol dañu toog waaye bu dee kenn ku mu ñor tamit dëgg ci xolam bëgg nañ loolu lañu mas suñu basi antan ñu doon junj maam Thierno ba muy toog suñu taal dañu naan ah li mu mbokk ma tax waaye ana mu tey dafa dëggaloon moo tax kon nañuy bàyyi xel yu ne di santaan ñëpp di ñaan suñu borom mu gën ñoo dafa tawfeex te yombalal lépp jàmm rek dikk bi di ndokkilaat suñu abaar yi doon defal yëngu yu jom yi sànq yi ñu génn ñaan suñu borom lépp lañ ko def suñu borom nangu ko def ci baax di wàcce suñu kàddu foofu di ci jëf yu baax asalaamaaleykum wa rahmatulah wa